bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi alghurri almayamin wa ala man ihtada bihadiyihi ila yawmi ddin واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا لقن لساني واحلل منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبد mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax ci weer wu tedd wi nga xam ne ci la ñu nekk muy ashahru safar di weeru seexul xadim ñu ci ndokkeel ñëpp di bëgg a ñëwaat ak yéen rek ci bind yi ñu baaxoo ànd ak ak yéen ci ay bis bu ne mu aju ci téere bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiallahu anhu yaxal tudde ko nahju xadaa il xaaj ñu ci doon ànd ak yéen ba taxawoon ci ci suñ bind bu mujj ci fi nga xam ne mooy junju kan mooy jàmbaar dëgg-dëgg comme ni nga xam ne noonu lañu ko sëriñ bi nettalee ci téere bi waaye kan mooy gër mi dëgg comme ni nga xam ne noonu lañu ko sëñ bi nettalee ci téere bi ñu taxawoon ci bind bu muy wax ne na nga moytandiku boo nekkee ci mbooloo di baj-baj yi wala nga nekk ci néegub jàmbur di yuqamtiku ngir bëgg a xam la fa ne wala ngay wëndeel sa bëri ci biir néeg bi ngir bëgg a xam la fa ne ci loo xam ne boroom daf koo nëbbu ngir bañ ko ko gis mu ne loolu lépp dafa bokk ci màndargaam tooy waaye dafa bokk ci màndargaam woyofum xel kon foofu lañu taxawe woon ci suñ bindu keroog tey ñuy continuer bind bi ba tey rek sëriñ bi di wax ne wakun na nga nekk saakinal jasad di aji dal aw yaram la dal majlisi fa jataay ba walazim te nga taqoo as sumta noppi bi inradin ci ak dummooyu tufat gog dana jariñ sëriñ bi radiyallahu anhu nee na soo nekkee ci ab jataay di na nga na nga ne dégg way dalal saw yaram na nga toog jàpp sa bopp bañ di baj baji bañ di yëngutu yëngutu bu bari waaye na nga toog jàpp sa njàmbur te nga taqoo noppi lépp loo xam ne moom lañ la wax nga dummóoyu ko maanaam nga jëllale ko jàpp ne yow li ñuy wax jëm siwul ci yow kon boo toogee ci ab jataay na nga fexey ba saw yaram dal waaye na nga fexey ba sa kàddu dal nga xam ne saw làmmiñ moom da nga ko téye comme ni nga xam ne noonu nga dalale saw yaram mu ne wasbir na nga muñ ala sabbi ca ŋàññ ga wala tujib bul tontu ahad kenn wakun na nga nekk kama xaala ni ki mu waxe al adibu waykat ba wala xat wala xat nee na nga muñ li nga xam ne mooy ŋàññ ga ŋàññ ga mooy lan mooy su fekkee ne nit wax na ci yow loo xam ne lu ñaaw la nee na na nga ko muñ te bul ko tontu bul ko tontu waaye na nga mel ni na nga xam ne noonu la adib boo xoon ne wala xad li nga xam ne moom la ciy leeral dina ñëw ci kanam incha allah kon nee na na nga muñ ak ŋàññ goo xam ne ñi ngi la koy ŋàññ wala ñu lay wax wax ju ñaaw joo xam ne ñi ngi koy jëmale ci yow boo toogee ci ab jotaay ñu la koy wax ak yooyu yëpp sëriñ bi nee na na nga ko muñ bu baax waaye bul tontu bul tontu kenn waaye na nga mel ni comme na nga xam ne noonu la adib boo xam ne wala xat mu ne isit tasaabu ba ndax ak ŋàññante maanaam di waxante lu bon maa takaasu bi ànd ak duuralante mooy waxalante lu du dëgg min aqbaxil xisool yi dafa bokk ci gën gaa ñaawi jikko kat tadaaru bi niki dóorante ga ne na li nga xam ne mooy ŋàññante de di waxante lu ñaaw ak a xastante ak a tuddante lu bon ak li nga xam ne mooy duuralante muy waxalante lu du dëgg sëriñ bi nee na loolu dafa bokk ci jikko yi nga xam ne moo gën a ñaaw kon jullit bi war na ko moytandiku bu baax a baax a baax waaye war naa moytandiku tamit di xuloo wala ñuy xeex lépp loo jëm loo xam ne daa jëm ci wàll googu rek dañ ko war a moytandiku ndax dafa bokk ci jikko yi nga xam ne dafa ñaaw lool te lislaam gërëmu ko waaye lislaam bàyyi na ko xel ba teg ci ay daan yu méttee métti nga xam ne nit ki wërta sab wërta ŋàññ ab jullit waaye wërta duural ab jullit maanaam di ko waxal loo xam ne du du du du du noona maanaam du la nga xam ne moo am mu ne wa kasratu dax ki baril ak ree maanaam baril ay ree tumiitu day rey alxalba ab xol fa xallilan na ndax ka kon nanga niiwal ay reer tur di kon gërëm la ar rabba buur ba sëriñ bi nee na baril ay ree de foo toll di ree foo toll di ngex ngex foo toll di reetaan loolu de sëriñ bi nee na day rey ab xol day wowal ab xol kon nit ki na fexe ba niiwal ay reeyam nee na bu defee loolu de suñu borom bi subhanahu wa taala dina ko gërëm soo demee ba gis loo war a ree sax nga def ni nga xam ne noonu la alayhi salaatu wasalaam daan def nga xam ne da daan moon rek du ree ba kàddoom jëm kaw kon nit ki war nay bàyyi xel suñu borom bu baax a baax ndax nit ki bu dee bàyyi xel suñu borom du def fu mu toll di xàqataay wala yu mel noonu kon sëriñ bi ne na nañu niiwal loolu bu baax a baax a baax di fexe ba bu ñuy ree ñuy muuñ waaye ñu fexe ba bu ñuy ree ñu bañ suñ kàddu bañ di jëm kaw mu ne yaani li mu jublu anna min al adabi ndaka bokk na ci ay teggiin al mardi yi yad yin gërëm an laa tukassira nga bañ a baril allahwa caaxaan wa daxka ak ree wala wa ak fo wal iqtiraaba ak baj-baji wa taxarruka ak yëngutu wa tataawulu ak yëqamtiku li tattalia ngir nga gis wala ngir nga mën a xool alaama ca la nga xam ne xafiya nëbbu na nee na li mu jublu ci lim lay wax noonu de nee na bokk na ci teggin yu gërëm day nit ki bañ a baril ay caaxaan waaye nit ki bañ a boril fo waaye nit ki bañ a baril ay ree waaye nit ki bañ a baril di toog ci ab jataay di baj baji di yëngutu mel ni moom dong moo fa ne fu ne mu muut muut fa loolu bokkut ci ay teggin waaye bokkut ci ay teggin nit ki toog di yëngutu côté bu ne mu fay yëngutu ba ku mu làngal sax dana la xañ jàmm yooyu yëpp bokkut ci ay teggin ni ki noonu tamit li nga xam ne mooy yëqamtiku di xool loo xam ne dafa nëbbu nit nëbbu dara ci këram ngay taxaw ci ginnaaw këram di yokkamtiku di ko xool wala nit nëbbu dara ci néegam nga dugg toog fu ne nga xool fa ngir bëgg a gis la mu nëbbu loolu lépp bokkut ci ay teggin nit ki war na koo moytandiku bu baax a baax moo tax mu ne fa innahu naka loolu de min alaamati tayshi dafa bokk ci màndargaam tooy wa xifatil aqli ak woyofum xel ana loolu lépp mu la tuddal ne na bokk na ci màndargaam tooy ku tooy rek a koy def maanaam ku am xelam matut ku woye di rek moo koy def waaye ku am xelam woyof dëgg-dëgg moom moo koy def moo tax mu ne wakun na nga nekk saa ki nan di aji dal maa dumta fil majlisi li feeg yaa ngi ca jataay ba mulazima sumti di aji takkoo noppi illa an tusala ba dee fi la laaj an say in ci dara fa tuji ba ngay tontu an bu walif ko bi xaf di sawti ci woyofu kàddu aw tax taaja wala nga soxlawoo ila sualim jëm ci laaj aw wala talabi yi ñu sàkk ko ci yow nee na na nga fe fexey ba nekk ku dal saa boo toogee ci ab jataay na nga fexey ba nekk ku dal bul ne def foo nekk di yëngutu bul def di baj-baji toog di yëngutu di sonal nit ñi nee na loolu lépp na nga ko moytandiku boo toogee ci am jotaay daal na nga dal na nga ne dégg toog benn place bañ di jug ak a dem ak a ñëw yooyu yëpp na nga ko moytandiku waaye it na nga takkoo noppi ca jotaay ba ba feeg ñu lay laaj dara suñ la laajee dara nag bu boobaa mën ngaa tontu ca kem lan la laaj waaye booy tontu na nga ci ànd ak ay teggin na nga wàcce sa kàddu tontu lan la laaj wala sax yow nga aajowoo laaj bu boobaa nga laaj kem la nga soxlaa laaj wala ñu sàkku ci yow nga wax bu boobaa nga mën a wax waaye li feeg loolu amul soo toogee ci ab jotaay na nga fexey ba taqoo ak teggin yooyu mooy na nga dalte na nga téye saw làmmiñ moo tax mu ne aw tal aw tala bihi wala ñu sàkku ci yow fatata kallama ngay wax ala xadril xaajati te kem aaju ja wala tazidu te bul dolli ala ma ca la nga xam ne tattarru dana loru ilayhi jëm ca moom min zalika ca loole fa inna fi sumti naka nekk na ci noppi sitran sutura waraaxatan akum noflaay kama xiila ni ki mu ko waxe nee na su fekkee ne sàkku nañ ci yow nag nga wax nga wax kem aaju ja nga xam ne moom lañ sàkku ci yow waaye bul ca dolli bul ca yokk lenn loo xam ne mën naa lor nit wala yow ci sa wàllu bopp mën nga caa loru kon nee na bu fekkee ne yooyu yëpp amul daal na nga noppi ndax noppi sutura la waaye am nooflaay la ñeel boroom ki nga xam ne moo noppi day am sutura waaye ki nga xam ne moo noppi day am nooflaay ndax du wax luñ koy ŋàññe du wax luñ koy xeebe du wax lenn loo xam ne njuumte mën na ca am ndax boo noppee doo wax kama xiila ni ko mu ko waxee ustur usturil ayba na nga suturaal sa ayib mastatanta loo man bi sumtin ci noppi inna fi sumti naka nekk na ci noppi raaxatan am nooflaay li samuuti ñeel noppi waa kon ba maanaam aju noppi ja waykat bi dafa wax ne na nga suturaal say ayib loo man na nga ko suturaal say ayib ci noppi ndax noppi de am nooflaayam ci boo xam ne ñeel na aji noppi ji nooflaay boo xam ne kenn mënula koo xaymaal kon nit ki su fekkee ne dafa noppi même bu amoon ayib kenn mënu koo xam ngir ne saa boo waxee nit ñi xam la kon nit ki mën naa mel nu ne waaye saa bu noppee kenn du xam nu mu mel waaye nag saa bu waxee ñu xam ko kon nit ki mën naa am ayib waaye bu ne cell waxut ay ayibam kenn mënu koo xam te bu boobaa loolee nooflaayam noppi rek moom mooy li nga xam ne moo ko may mu ne wajaali sumta na nga def noppi jawaaban mu di ab tontu inoo yiita ndeem sonn nga rubba xawlin bariwaana wax jawaabuhu ak tontom fi sukuuti ma nga ca noppi ne na yow nda waa ji na nga def noppi saa boo sonnee ci ay wax wala saa boo sonnee ci ay yaamane ak damane na nga def noppi muy sa tontu ngir ne noppi de soo ko defee lu baree bari mën nga ko mën nga cee mucc te bari waana nit wax la loo xam ne tontu ba dëgg-dëgg mooy noppi noppi bañ koo faale bu boobaa loola mooy tontu ba kon soo soo sonnee wala nga tàyyi ci waxante wala yu demee noonu nee na na nga fexe bay takkoo noppi rek ndax boo noppee rek daanaka lépp looy tontu rek noppi gi mën na la ko fajal kon bari naa waana wax joo xam ne su la ko nit ki waxee bul ko tontu bul ko wax dara neel cell rek noppi boobaa ton cell joogee nga nga ne cell loola mooy noppi ga te loola moo koy moo koy faj moo koy rey mu ne wafil xikmati nekk na ci xikma lawkaana su nekkoon alkalaam wax fiddatan di xaalis la kaana kon mu nekk asukuutu noppi zahaban di wurus na xikma day wax ne maanaam xikma mooy wax ji am njëriñ ne su fekkoon ne wax de day xaalis maanaam day xaalis kon dañuy wax ne noppi moom wurus la nga gis ni nga xam ne noonu la noppi gën a amee solo wax ju bari ni nga xam ne noonu la noppi gën a baaxee li nga xam ne mooy wax ju bari ak wax ju amul njëriñ kon nit ki saa bu bëggee mucc ci àdduna saa bu bëggee mucc ci nit ñi nay fexey di takkoo noppi waaye saa bu bëggee di suturaal boppam nay fexey di takkoo noppi ngir ne noppi ci la nit ki mën a jaare ba yooyu yëpp mu man koo man cee mucc kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di wax ni in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu